ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك جعله قرآنا نحوا سنقرأك فلا تنسى لما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى على ثم لا يموت بها ولا يحيا قد أفلح من تزكى أولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سيدنا يلا الله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 الأبهاب من نزلها يغيب أشعى فقال له وكان اليوم لا kon boog mbokk jullit yi mbokki taalibé yi mbokk ñi nga xamante ñi ngi ñooñu doon bàyyi xel rawatina mbokk internet yi ci seen chaîne de production di Tawfekh Production ngeen di ko am ci YouTube bi di ko am ci yenn suñu plateforme euh, tey jii la woon fi nga xam moom moo di ci jumaay Masaalikul Jinaan euh, fii lee ci barabu néegu yàlla bu sell bi ci jullik Aydal Fitr bi di jullik Korite gi ku nekk xam ne na euh, tey jii mooy bés bi gën a màgg ci lislaam ndax ku nekk xam ne ne weeru koor kat bés bi bokk na ci li koy gën a mandargaar fii ci Masaalikul Jinaan yamook jamono boo xamante ni mbas mbas mu méttee métti euh, mbas mi ñu nekk ci nag euh, yittewoo ay ñaan lool waaye ku nekk xam ne ne ak dogal yi ci kilifa yi jëloon rawatina nguur gi ngir nag yenn dajaloo yi waaye biñ joxe waatee dogal bi ngir nit ñëpp képp ku am ittey xamem te fu jaamu jàll nga mën koo def waral fii nga xam ne moo di Masaalikul Jinaan comme euh, grande mosquée yi tamit jamono ba nga xamante tëj nay buntam fii moom dafa fees dale ki doomu aadama ñëpp ñëw nañ amal seen julli kilifa yi diine kilifa yi aada ñëpp ñi nga xamante ni annoncé nañ leen ko ci début bi rek ñuy door suñuy kàddu gis nañ leen

leen a déglu seen réaction euh, mbooleem ñi nga xam ni ngoon ci barab bi di ñaan rek yàlla suñu borom euh, li nga xam te moom la fi euh, wàccee di mbas mi yàlla na ko fi jëlee yàlla na lemi lemi dëbësam ak i débat dem jóge fi ba faaw lépp loo xam te kilifa yi ñaan nañ ko ci barab sell bi yàlla na ko yàlla ful mu wàcc ci àdduna bi wàcc fépp yàlla nañu yàlla dafa jàmm ñi ngi baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp ba déwén incha allahu rabbi ngeen